Euh, asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu kon tey ñu dem ci suuratul jumati suuratul jumati nag Madina la wàccee fukki laaya la ak benn ci riwaaya wars ginnaaw bismillahi rahmaani rahim mu ne yusabbihu dana sellal lillaahi ñeel yàlla ma fi samawaati la ca kaw asamaan wa maa fi ardi ak li ci suuf almaliki yàlla mooy buur alqudduusi mooy aji sell alasiisi mooy aji not ji nguuram alxakiimi mooy aji xereñe huwa moom yàlla alladi mooy ki nga xam ne baasa yónni na fil ummiyiina ci ñu firul baañi rasulan ndaw min um lu bokk ci ñoom al ummiyu mooy ku firul baa al ummiyu mooy ku jàngul baatu ummu ci boppam nag moo di ndey al ummiyu mooy ku munta wax lu dul la ko ndeyam doon naxe ba mu nekkee xale al ummiyu mooy kuy wax làkku ndeyam xam nga waxuñu al yu ndax eh, ndey ndey ak mag ak rakk ñooy jàngal gone yi wax waaye bàyyi moom amul jot ga waaye li ndey li doom di dégg eh, ba di ko làkk lépp ci ndey ji koy déggee te fa mu koy déggee nag sori na maanaam doom bu eggee ci juróom-ñetti weer rek jëm kaw day nekk nit ku mat sëkk koo xam ne bu ndey ji dee wax day wiir ci dënn bi mu di ko dégg moo tax eh, bu xasee juddu ba def ñetti fan ñeenti fan balaa am fukki fan rek bu fu ndey ji waxe mu xool ko ndax yàgg naa dégg riiram dëndam ndey ji miin na bi loolu moo di al ummiyu al ummi yu mooy ki nga xam ne la ndeyam doon wax dong la dégg jàggul leneen mun tax leneen loolu mooy tekki baatu ab um loolu mooy tekki baatu al ummi yu mooy ku ferul jàngaluñ ko lenn lam doon dégg ci ndeyam dong loola lay wax <clears throat> bala nga xam ne ummi yu jooju baatum ndey la nga jur sa doom di ab wolof bis ba mu juddoo nga yóbbu ko jox ko bambara ya jigéen ñi bambara ko ba mu doon mag loolu moo lay xamal ummi yu mooy lan bu dikkaatee Sénégal bu ko doyam ne na nga def da ko naan imaam mooy ndax lan ndax dégg ko <laughs> loolu moo tax du ko dégg nit ku nekk sa ndey lay jëkk jàngal bala laa keneen a jàngal ku ci ku génn nag ci sa école ndey boobu muy nga dégg làkk làkk sa ndey nga jàngaati leneen ak leneen léegi nag booba ngay dekk ko jàng waaye boo yemee ci sa ndey jàngaloon dong ummiyu nga loolu mooy baatu ummiyu rasulan muy ndaw min um bokk ci ñoom yetlu alayhim di jàng ci seen kaw ayaati i ay kii ay ay laayaam mu di leen sellal wa yuallimuhumul kitaaba mu di leen jàngal téere ba wal hikmata ak hadiis xam nga waxut wa yuallimuhumul ta ndax mun ta bind wala taxuttu bi yaminika isan lartaabal mubtiluun jàng ngeen ko alkitaaba mooy téere ba téere ba nag ci kaw lawul mahfuus lay jógee ñëw ci moom jibril la koy indi mu di ko jàngal nit ñi wal hikmata ak hadiis wa in kaanoo donte nekkoon nañu ñoom xeetam woowee min xablu la jiitu mu di mu mu juddu ba woo leen la fi dalaalin mu biin ñu nekkoon ci réer gu bir wa aaxarina ak ñeneen yónni nañu ci ñeneen min um ñu bokkut ak ñañu ñu njëkk ñi ni nga xamee ne noonu la ñuy ci yonent yàlla mu saa noonu la ñu yónnee ci ñeneen ña nga xam ne ñoom la ñu yónni yonent bi ci ñoom te du ñii mooy na yeeg taabi taabiina yi ba ci man meeg yow mi may déglu ba yomal xiyaam ñun ñëpp yonent yàlla mu am Muhammad sunu yonent la yónni nañ ko nag ci ummi yi na mu nekk rasulan yatloo alayhim ayaati yi wa yuzakkihim wa yuallimul kitaaba wal hikmata wa in kaanu min qablu waaye tamit boisa ci wa axarina bu yónni nañ ko ci ñeneen ñu bokkul ak bani xurayshin mooy wama arsalnaaka ila rahmatan lil alamina universel diine islaam moom la képp ku juddu rek yonent lañ ko ci yow doonte fekk booba yow yow ci fekk booba euh, euh, ba muy ñëw fekku la fi te ñoo mooy mooy taabi ina yi lamma yal aqu yéeguñu bi in ci ci ci yéeguñu ba egg ci yonent bi ci ci jamonoom waaye dañoo juddu fekkuñu ko fi te ñooy taabiina yi ak taabi taabiina yi ba ilaa yawmal xiyaama yàlla yónni na yonent bi ci ñëpp aaxarina jooju ba bis penc la woowa al moom yàlla mi yónni mooy aji ci nguuram al hakim mooy aji xereñe saalika fadlullaahi loolu nga neelal yàlla yàlla moo defal nga neel yi Muhammad mu yónni ko ci nit ak jinne yónni ko ci ñu njëkk ak ñu mujj ba yawmal xiyaam ñëpp la ñëpp lay sérab yeneen yuuti ma ne shaawu ku ko soob koy jox te soob na ko ba jox na ko ko moom mu amat wallaahu yàlla sul fadil asim mooy borom ngëneel lu màgg la masalu masalu lazina melaw ñooña nga xam ne hummiloo tegeef na leen a tawreete ñu jëfe tawreet su ma lam yamiluha waaye ñoom yenu wuñu ko muy jëfe wuñu la ca nekk dañoo lank bañ koo jëfe ba masalil ximaar yi ñu ngi mel ni kii mbaam yamilu asfaaral mu sëf ay téere bi isa masalul qawmi kaddabu mu ne bi isa bon na masalul ladina masalul qawmi misaalum gaañ alladina ñi nga xam ne kaddabu be danañu bi ayatillahi ci kiimaan yàlla yi wala u yàlla nag laa ya dii duma sa jubal alqawma nit ña azalimina ñe way tooñ léegi nag yàlla ne léegi ma dem ci ñi nga xam ne e, ñooy yahudi mu ne xul waxal yow mu amat ne yaayu alladina yéen gaa ñi nga xam ne haadu nekk ngeen ay yahud xam nga inna naa jooju ñu waxoon ñoom yahud yi moo indi baatab alladina haadu nga xam ne ñoo yahud ya sa amtum da ngeen a sa amtum ndeem jortu ngeen ne annakum naka yéen awliya allah yéen a méngoo yàlla min dooni naasi walif nit ñi yéenay saabullahi al muxtaara waaye waaye moo mawta yéen leen dee ci seen bopp ñu kuntum saadiqiin ndax bu ngeen dëggalee ndax nit ku dëggal da yàkkamtee dee ba fekk boromam bëggatul ci àddina gi moo tax buñ ne kii murid saadix la ma ne saadix yombut di saadix mooy koo xam ne bu béy bu xëyee du fi bëgg a yendu bu gonte du fi bëgg a fanaan bis bu nekk mu naan sama morom yëpp dem na maa fi des naa dem ci yàlla kooku mooy saadix waaw koo xam ne dee ak koy gënal dund kooku mooy saadix waaye koo xam ne bu dund dikkee mu daw daw ca dund ga dee ga kooku mun ta nekk ab saadix wala yatamannaw na uute duñu ko yéene abadan lu tax bi maa xadamat ay di im mooy la la la la ñuy jiiteel ci kéefër nit koo xam ne la nga def jubul da ngay ragal dee na xam nga la ngay fekk yi wallaahu yàlla alimun aji xam la bi zaalimiina ci way way tooñ ya alim nag mooy ko xam ku ñu xamal te ko nen ko xam xamal ko mu xam alim nag mooy ki xamam yem ci moom te jàllul ci kenn te kenn xamalu ko te umpalewul dara kooku mooy alim xul waxal ne innal mawta naka dee àlla lasi nga xam ne safiruuna min umam ngeen di daw fa inna naka moom dee googa mulaaxiikum dana dajeeg yéen suma turadduuna ñu delloo leen fu ñu leen di delloo ilaa aalimil xaybi saka nga xam ne moo xam kumpa wa shahaadat yi ak lu feeñ fa yunabbiikum mu solo mu soloo leen te li leen bi ma kuntum taamaluuna ca la ngeen nekkoon di ko jëf jooja wax jeex ñu dem ci wax ju bees mu ne yaayu lazina amanu yéen gaa ñi nga xam ne gëm ngeen isaa nuudiya ndéem wooteef na ndéem wooteef na loolu moo lay xamal ne ajju ajju mooy jàpp nit waaye ajju jumaa du jàpp morom ja nit ñi bari dañuy wax naan diggante jumaa ji ak jumaa ji nii la war a toll neel déedéet du loolu jumaa mun te jàpp morom ja ndegam mat nañu mat nañu mbooloo waaye jumaa nit lay jàpp isa nuudiya woo wooteef na bu ñu wootee da ngaa dégg boo déggut boo déggut woote nga bokkoo ca kon foo mën a dégg ayaa ala nga bokk mbaa bokk fa nga nekk am jumaa nga yem fa loolu loolu itam d'accord waaye li mag li li li fi nekkoon bu njëkk nag ñi natt ay xasab ak naan diggante fii ba fii jumaa du fi nekk waaw diggante fii ba fële jumaa du fi nekk loolu teguwul fenn li wér daal mooy isa nuudiya ndeem wooteef na te nga dégg ci sa nopp taxoo te gisoo ku la yëgoy gisoo ku la yëgal ne noon danañ nañ leen julli ji li salaati ngir julli mi yamul jumaat ci bisub àjjuma fan eh, fas aw na ngeen na ngeen dox ilaa zikrillah i jëm ca julli ga zikrillah fàttaliku yàlla mooy julli ga nag aqimi salata li dikri fal almin mudakkir wasarul bay a ngeen bàyyi njënd ma ak jaay ma ak yaxantuma zalikum loolu seen day xayrul lakum moo gën ci yéen bàyyi njënd ma ak njaay ma ak yaxantuma su ngeen déggee noddu ngeen dem julli ji moo gën ci yéen in kuntum taalamuuna su fekkente ne xam ngeen moo gën kon def leen ko fa itaa xudiyati salaatu bu julli ga jeexee nag fantashiru tasaaroo leen fil ardi ci suuf si wabtaxu te ngeen sàkku ji wërsëg min fadlillahi ci ngeen ne yàlla waskuru te ngeen tudd laa yàlla kasiran lu bari laallakum ndax lee yéen tuflihu na ngeen texe li waral nag suratul jumuati wàcc yeneen bi dafa doon xutba ca madina fekk booba njënd ak moo xew njëgg ma jóge nag saam mais jëgg jóge jóge jóge yaman ñu ne njëgg ma ñëw na ca marché ma ñu dégg ndënd ya gaaya yépp dem ba nga xamee ne bii gaaya yépp dem nañ wàcc fa yonent bi yonent bi fa moom dong taxaw di xutba ab xutba am loolu tax yàlla wàcce nag taaru aljuma pour ne leen nag loolu moom du yoon bu ngeen déggatee nodd dem leen ca jàkk ca toog te fekk julli wu ñu ba julli ko egg ba yéen fa jógee loolu moo tax mu daldi ko ne way saara aw ndeyam gis nañu tijaaratan am njëndëkam njaay aw lax man aw lax wan wala musique wala wala ay musique ki sabar wala boog ab campagne wala boog meeting ak yu concert ak yooyu mooy lax wan ay caaxaan am na ñoo xam ne dem meeting ba leen gënal dem toog ci àjjuma ja julli ji am na ñoo xam ne dem te làmba ja toog fa di xaar bëre ba moo leen gënal dem àjjuma julli ji am na ñoo xam ne dem ca marché ba toog fa ba football jot ñooñu moo leen gënal julli ji am na ñoo xam ne dem tey ci président daf fi ñëw tey moo leen gënal julli ji loolu lépp laxwan la loolu lépp ay caaxaan la bu ngeen jëfee ay caaxaan bàyyi leen ko fa ngeen dem julli ji bu ngeen buggee nekk ay julli yoo xam ne kenn du leen àtte ci ak naafiq mu ne wa isaara aw ndeem gis nañ tijaaratan am yaxantu aw la woon wala ay caaxaan in faddoo ñu bëbb in faddoo ñu bëbb ilay yaxantuma walla ca caaxaan ya ndax moo leen tax dem eh, bala fi ci jamono ji nga xamee ne eh, eh, yaa ngi yaa ngi xutba wa tara koo ñu bàyyi la yow xaa iman nga ne jaww xaa iman mooy nga ne jaww yow dong ne fi kenn néew fi xul nee leen bu ñu ñëwee maa indal laa ila fa yàlla te mooy julli ak jaamu yàlla xayrul moo gën minal la wi ci caaxaan wa mina tijaarati akum commerce kam jënd kam jaay te nag bu dee tax a daw dem ca njëgg ma bàyyi fi muhammad wallaahu xayru raasixiina yàlla mooy ki gën a mën a wërsëgale man ngi ne des ci jàkka ji am wërsëg ngeen dem jaayi perte loolu moo di tafsiru suratul jumaa léegi nag bu ñu jàngee suratul jumaa ba noppi dafa am ñetti tomb ba ñeent yoo xam ne dañ ko ci war a leeral ndax إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون dañ cee war a leeral ajuma mu di feet goo xam ne bu ñu noddee sawal ak buñ sëlmalee la ñu leeral ci tamxarit muy juróom-ñeenti fan ak fukki fan ci tamxarit ñu leeral ci tabaski mooy fukki fan ci tabaski bu la neexee nga teg ca ñaari fan ñu leeral ci kori muy ñaar fukki fan ak juróom-ñeent bët set di fan weer weer wa feeñ ca ngoon nga dale ko fa wala mu mat fan weer nga wori dale ko fa ñeenti feet yi mooy feeti universel yoo xam ne ñépp ko bokk feet gu njëkk gi moo di yawmul jumaa <clears throat> yawmul jumaa ci la yàlla bind aadama yawmul jumaa ci la ko yàlla wàcce fii ci ko suuf yawmul jumaa la yent yàlla aadama génn àddina tàkkusaani yawmul jumaa ci la àddina tukki bisub aljuma mooy bisub yawmil jumaatil akbar ci la di taxaw boobu bis la gaa yi doon wër ñii teg ko samedi ñii teg ko dimanche ci làmbatu mu Muhammad nag lu làmb dañ koy won ñu ne ko ajjuma la waaye bis boobu ak li muy màgg lépp bu ñu noddee waxtu ajjuma ba ba ñuy julli ba sëlmal la yàlla ne na ngeen bàyyi li ngeen di def te ngeen dem ca julli ga semaine bi ba mu daj benn bis da ci yàlla maye feet te lim ci maye feet mutul une heure de temps bu la soobee nag nga maasale bis bi yëpp bu la neexee bañ ko maasale waaye moom bu ñu noddee sawal la wax bañ jullee ba sëlmal dem leen liggéeyi googu fet foofu la yem màggal gi ñuy màggal ajjuma yi jëru moo di ko leeral wax naa leen ko ba noppi ci la yàlla bind aadama kon aadama war naa mën a màggal ajjuma ndax bisub anniversaire la ci la ko yàlla dugal aljanna kon war naa mën a màggal bisub ajjuma ndax ci lañ ko dugal aljanna ci la ci lañ ko wàcc ci suuf kon war naa mën a jàpp bisub ajjuma di ko jéggulu ndax ci la de ci ba mu defee bàkkaar ba tax yàlla wàcce ko àjjana bisub ajjuma la ko fi indi bisub ajjuma ci la suñu maam Adama génn àddina bisub ajjuma ci la ñuy wal bufta àddina tukki bisub ajjuma ci la ñuy taxaw ci la ñuy taxaw yomal xiyaam kon looloo tax ñuy màggal bisub ajjuma kon ma bis boobu c'est universel pour tout le monde la kenn desu ci donte nit ñi xamee wuñ ko noonu te itam bu ñu noddee ca waxtu ajjuma bu ñu noddee sawal ba ba ñuy julli ba noppi lañ la nga bàyyi li ngay def lépp nga dem julli ji soo noppee demal googu feet ak googu màggal mooy màggal gi ñu dëkk ci màggal gu yàlla santaane te maam aadama la ko sant kenn ku nekk nag ak na koy defee ba mu dikkee ci Muhammad nag la ñu won li ñu koy defee te yàlla santaane te sante woon ko ci aadama xam nga sunu maam aadama moom moo tabax moo njëkk tabax kaaba loolu mooy awalu baytin wudia linnaas wadaahu awalu nnaas awalu baytin wudia linnaas wadaahu awalu nnaas te awalu nnaas aadama néeg bi njëkk a tabaxal nit ñi ngir ñu ci jaamu yàlla mooy kaaba ga ca Makka ka ko fondement mooy Adama ak Awa ñoo ko def bañ bañ dajee Arafa loolu histoire la mënuma cee xóot kon du fi xej ñaareelu bis bi nga xam ne dañ koy feetu mooy bisub tamxarit lan moo tax ñi feetu tamxarit te tamxarit tamit feet universel la àddina warngal kapp ñi gëmut yàlla ak ñi tuubut ak ñi lislaam ci ñoom ak ñépp dañ koy def kenn ku nekk ak na nga koy defee nag waaye ñëpp koy def ñee dañ koy def carnaval ñee dañ koy def lii ñee dañ koy def laa ñii dañ ko saxal ci histoire yemale ko ci bis ba mu tolloo woon ñii dañ ko dañ ko dekkal yóbbu ko feneen waaye kenn ku ci nekk am nga bis boo xam ne dañ koy feetu te bisub tamxarit tax nga di ko def lan moo indi feetu tamxarit ba yàlla ne yonenti ba yonenti yàlla noo in ne yàlla rabbi laa tasal alal ardi min alkafirina dayyaaran innaka intadarhum yudillu ibadaka wala yalidu ila fajiran kafaran te fekk yàlla noo moo ko noon wala tuqaatim nii fi lazina zalamu innahum muxraquun ba mu ko ni nit ñi dañ leen di labal waaye du ñu gëm yàlla booba la nekkoon kay naa ñaan yàlla mu jóge leen fi nax ñu ñu noppalu bis ba nga xamee ne gaalug noo in nga kose na ci jabalul joodi ca iraq juróom-ñeenti fan la ci tam xarit bët set doon fukki fan euh, euh, ca déwén sa yàlla noo in euh, woor juróom fan ak fukki fan ñu def ko goo xam ne saa yu bis ba del siwaatee ñu feetu ko muy feet ak ñaari fan ñi juróom-ñeenti fan ci tam xarit ak fukki fan looloo waral tam xarit nekk nekk euh, euh, euh, weer wi njëkk ci weer yi waaye weer wi njëkk ci àddina ji noo in sos moom la waaye weer wa njëkk ci weer yi aadama it xëy na moom la boo demee ndax yàlla moom du def ne yaa yonent bi def ne àddina wëlbatiku ne dellu si waat na meloon bu njëkk te ba mu ne dellu si waat ba meloon bu njëkk jël weer wa tam xarit la ko jox kon xëy na ba aadama ñëw tam xarit la woon ñii feetu ñaari feet ñii feetu ñaari fan yooyu muy tam xarit ñii dox ba yonte yàlla ibrahima ñëw te leen di ismaila ga ñu jote ko xar ñii feetu tabaski mu tollook ren di xar ma ñu jotewoon ismaila ñii dem ba yonent yàlla eh, isa ñëw àddina bi yàlla isa ñëwee àddina ñu ñaan ko ne ko dañoo bëgg yàlla defal nu eh, maanaam eh, yàlla daal di koy sas ne ko te waa kër yi nañu woor fanweeri fan ñoom ñoo soppi waaye fanweeri fan yooya mooy fanweeri fan yi weeru koor moom la ñoom ñoo ko soppi te dinaa wax lan moo tax ñu soppi ko bu ma bu may galee ci li may wax nii ba leen yàlla sante weeru koor dañoo woor woor ga ba woor ga jeex ba weeroo feeñee ñu ne yunt yàlla isaa waaw liggéey kay ñun liñ ci xam képp ku santaaneb liggéey buñ la ko defalee ba noppi da ngay togg ay ay añi liggéey ku santaane mbàccam di gerte bu bu da ngay toggal añ ña koy bàcc ku santaanem ngóob da ngay toggal añ ña koy góob ku santaanem ndéqi da nga comme ni mu mel nii rek ci aaday nit ku ñuul noonu la dem ca ñoom jooje jamono ñoom itam loola rek lañ ko jàppe woon yàlla kay ginnaaw warloo nañu ba ñu waral ko fanweeri fan xanaa kay dinañ wàcceel boog benn table de invitation boog ndax ku liggéey looyu nit ba ñu wàcce kay boo leen fayut tamit nga toggal leen lu ñu lekk léegi nag yàlla Isaa ne lu ngeen bëgg mu ne yàlla wàcceel ñu ma maa idatan min sama taabal ju jógee al asamaan ànd ak lu ñuy lekk mu ne ah mbaa bu ngeen ko defee ba noppi ci yàlla nar leen ci yàlla teg da ngeen ko da ngeen ko da ngeen ko mën a tegoo ñu ne waaye dañu deful ko dañoo bëgg a gëm yàlla na lay seen i lay daal léegi ba loola amee yàlla wàcce leen maa idatan min mi ne leen nag lekk bi wàccee nag maa idatan min sama dafa ne lekk leen ba suur te bu kenn denc dara ñu lekk ba suur kenn kenn denc dara taabal ji yéeg saa yu ñu xëyee saa yu ñu xiifee taabal ji ñëw saa yu ñu xiifee taabal ji ñëw saa yu taabal ji ñëw ba muy ñeen fukki fan ba mu ko defee ñeen fukki fan nag yàlla na leen a nattu ne leen léegi ni ñuy doxale mooy eh, eh, bu taabal ji ñëwatee nañ dox wayi ñàkk yi ñu lekk bu wayi ñàkk yi lekkee ba suur ñu ci des door a lekk ñu nekk ca noona bu taabal ji dikkee ñi lekk ñu xooy ñàkk yooyu ñàkk yi lekk ba suur ñu door ñu ci des waaye nag taabal ji day ñëw te du jeex ba yàgg nag siisante siisante nag dikk waaw comme li dal politiciens yi nii rek siisante dikk waaw gâteau bi moom du du ma ko bokk ak yow maag ba nga ko jël mbaa ku bëgg bu ñuy séddoo gâteau bi nga séddoo ko ñëw yow ñëwal si ñëwal nu xëccoo ko buñ ko jotee séddoo ko na ngeen góorgóorlu nag boo jot ko ndax bu ko waaj a yóbboo bong bong bi da koy séddoo moo ki moromam léegi daal ni nit ñi mel nii rek noonu la nit ñi ma sa mel léegi nag borom alal yi ne euh, taabale asamaan ji daal bala ñoo lekk ñàkk yi lekk ba noppi loolu du fi amee léegi doon yi làkku ñun ñëpp loola la leen yàlla natoo yéegal taabal ji del siwaatul asi ci suuf léegi nag ñàkk googu ñàkk taabal ji tax ñu ne dañuy woor ñeen fukki fan yoo xam ne dañ koy tuubale seen boroom te nag duñ ko def ci wenn waxtu bu dul bi gën a tàng ci àddina ngir nattu seen bopp ñu toxal koor yóbbu ko ci heure bu tàng ba ca ngelaw lu metti la ca pënd ba di ko woor def ko ñeen fukki fan au lieu de fanweer ndax fanweer lañ leen woorloo woon waaye taabal ja ñeen fukki fan la wàcc ñu def lu tax taabal ja ñëwatul ñuy woor def ko ñeen fukki fan yokk ca fukki fan waaye fanweer yi mooy li dëgg weeru koor tam la tollooloon waaye tolloowutoon ak weneen weer ñoom ñoo ko toxal ci weneen weer loolu moo wér ci histoire ñeenti feet yooyu moom lañu xam ci àddina feetu ajjuma ndax ci lañ bind aadama ci lañ ko wàccee ci lañ ko yónni mu na ci ci ay ci ak njabootam ci lañ ko ci lañ ko ba ci la génne àddina ci la ñuy wal buuf te ci la ñuy dekkal nit ñi yomal xiyam ci la ñuy taxaw saa kon boobu moo tax ñu di ko def feetu tamxarit ci la yonent yàlla nu in costé gaalam ga feetu tëbët ci ci la ñu musale yonent yàlla ismail te rendi ga feetu korité ndax ci la ñu wàccee woon maa idatun mina sama léegi nag origine diine ji nga xam ne mooy diine ju amul tappale mooy diine islam ndax loo ci gis origine ba ñun ñoo ko yor rabbana taqabal minna innaka anta samiul alim wa tub alayna innaka anta tawwabur